ok léegi am na solo li ma lay laaj mooy yow boo nekkoon président Modou lan nga koy fal waaw Modou bu ma ko newoon président tey ñoom dama leen di fal ci ministre yi ëpp doole Modou Lo dama koy fal ci ministre bu ëpp doole. ministre de l' wala ministre de la justice. justice wala intérieur dama ko ciy fal. am de mi noonu ndax mbër yooyu ñett yoo ñooñu laay jox yu gën a am doole yi. Papa Sow loo koy def. waaw Papa Sow moom waaw Papa Sow dama koy urbanisme waaw yooyu laa koy def waaw urbanisme baax na yooyu baax baax na mais ku ne ah. damay naa sa poste. <laughs> léegi non Papa Sow ban ministère nga koy dénk. Modou Lo nga ne loo koy dénk intérieur nga koy def wala wàllum diine ji moo koy yor wala lan ak wala lan wala ministre de la santé. waaw Modou Lo mën naa kaa jox maanaam maanaam ministre de la santé bi baax na loolu comportement loolu baax na ministre de la santé. Balla Gaye loo koy waaw Balla Gaye ma jox ko justice ndax comme charia la màkk boo fa jógee moom àtte rek charia ndax gis naa ko mu rafetlu ko am de mu rafetlu ko billaay wallaay waaw waaw moom laa ko waaw bi góor ma def ko ministre kii moom bu yor kii bi nu mu tëti waay waaw dem beeg dikk bi waaw xam nga waaw waaw yooyu laa koy jox dëgg la dem beeg dikk loolu la ma ne waaw ministre yooyu yëpp ministre la yooyu dem beeg dikk bi waaw ah, franc waaw franc it ma def ko ministre bi nga xam ne waaw ma maanaam waaw kii daal ma xool ah. waaw mën na ne waaw ministre forces armées bi mën naa kaa jox franc ndax am na doole te mën na koo mën na koo utiliser ko billaay wallaay. jamaïcain loo koy def ministre la. jamaïcain waaw kooku kooku dama mais Jamaye kay neex na joxe nag ndax xam nga nit ki neex na jox poste ba ndax Jamaye da ngay waaru boo ko gisee at baat wala 15 ans te bëgg naa kaa dénk sax maanaam ma banque bu banque mondiale ministre bi yoor mi ngi noonu mais xam nga bu koy. waaw finance bëgg naa kaa jox mais buñ ko gisul dañ koy nanguwaat hmm. ah, ma jël ko rek joxaat ko Balla Gaye ndax man charia rek laay. ñaari kon nga ñaari kon laa koy dénk waaw ndax marque bi mu jógee moo tax da leen xaw a gañ tuuti waaw da xaw a ndax yonent bi ku fa dem yaa may gënal ñëpp ci këru àdduna. billaahi wallaahi kan nga def Omar Ousmane Aliou saaba yi nga xamante yàlla nga dund ba dem yi nga xamante ne ñoo doon yu ànd ak Seydina Mohamed di wax ay kéemtaan billaahi wallaahi taala xoola Omar Ibnul Xataab billaahi mel ba yonente bi ko ñaan ba ñëw ci diine allahuma bi ay islam bi Omar Ibnul Xataab xoola ma loolu nga xam ne loolu kéemaan la ah mais bu ñu toppee ci yenn yoon di wax gis télé wala ñu tëj la mi ba ngay wax ci yonent bi loo xam dul dëgg loolu bëggatuma ko ci dégg te dama am samay sëriñu kilifa di may déglu moo tax bëgg moo tax ma wax ci wax boo xam am teggin ndax yonent bi boo ko waxee man dootuma ku ko ci waxati dootuma déggat damay jël ndox mu tàng ay coton fat samay nopp ba pare lu di nga dégg loo xamante ni boo dugaloon jën ci ndox di ko baxal vingt ans du ñor da nga koy déglu nañu respecté yonent bi ah. nañu respecté Seydina Mohamed bu ñu ko respecté àddina bi yëpp day normal mais taxaw gis teel taxaw di wax ne ay waay loolu rafetul yonent bi gën ñëpp askan ñëpp a ko bind ñoom sëñ Touba ñëpp ko bind ñëpp a rafetlu Seydina Mohamed moo tax sëñ Touba lu ma am rek loolu la koy yonent bi la ko tuddee xoola ma loolu ah ñëpp ko am tuddee yonent bi ah. waaw dafa am loo waxul ba léegi de. waaw premier ministre. waaw premier ministre bi moom waaw premier ministre bi mën naa kaa jox Modou Lo waaw Modou Lo. Modou Lo nag yànq ministre de la santé nga ko waaw waaw bon waaw kon ma jox ko Bombardier ndax Bombardier vraiment nit ku mm, suñu grammaire ku am respect la ci doomu aadama dafa am waaw dafa am yar am comportement waaw dafa am yar am comportement baal Bombardier moom waaw di ko ñaanal daal lu mu bëgg moo yàlla na ko fi suñu borom bàyyi ndax Bombardier dafa nit nit la ko quoi nit boo xool da ngay xam ne nit la. mais Siteu ban ministère ko dégg Siteu. waaw Siteu waaw Siteu moom naa ko jox maanaam wàll ministre bi yor wàll kii bi nu mu tëtti waay waay ah. wàllu lan waaw ah déedéet kii daal wàll kii bi noonu da ngay waaye waaye wàll kii bi waay damay damay ki waaye ah déedéet bu duñ ko jox noonu waaw wàll maanaam ñi nga xam ne ministre bi nga xam moo yor màkk bi dem beeg ñëw bi waaw ñu ministre bi yor wàllu aji yeeg umra yëpp dafa am. moom mooy ban ministère moom ah. waaw waaw waaw ministre mooy état. ministre eh, waaw waaw mi ngi noonu. étranger. waaw waaw boobu daal ñu jox ko Siteu waaw jox ko Siteu. moom noo fan. yow moom député laa lay def. Eh. <laughs> waaw. yow moom député laa lay def. may yow moom député laa lay def barke Rasul laaj. député. député salaire ba bariwul de. ko États-Unis mu yóbbu ko def ko wàllu ministre de mooy bi affaire sàmm yeeg yooyu noonu. waaw moom noonu laa koy def. mu. Ndiru Diagne noo koy. Lirou Diane mënul ne ministre Lirou Diane mënul nekk ministre Lirou Diane daal mënul nekk ministre nañ ko bàyyi géejawaay daal mu jëndal ko bale taxaw muy bale mbedd maag <laughs> waaw jeex na maire yi fa soxloo ko élection maire bi ñëwee day neen day laaj Géejawaay. laa ilaaha illallaah kon damay ñëw dëkk foofu ja gañe ko ci bon lii mënul amul comportement boobu amul comp te maa ngi liiru jànd bis bu ma solee costume mu sol costume day daw bokkuñu sax bind. bokkuñu sax. mbaggam yooyu dara da cee ne baatam boobu mel ni yeelam yooyu mel ni ñaam bu ñu xool liiru jaan dafa tekki dara. ab tekkiwul dara na ma bëgg mu defaraat ay waxinam moom laa bëgg moom xamul waxin respecté ndi yow maa demee ñu respecté waaw loi Guédiawaye moom la moom man sama yoon néew si mais li ma joteeg moom moom dama li ma bëgg mu changé dama bëgg mu changé waaw mais am yéele mi mel ni ñàmbi bu ñu xolli moom rafetlu wa am de non moom Tyson waxoo ba moom ku yor poste moom laa ne nekkal fee nekkal fee ndax comportement am dafa rafet ci Pikine Tyson waaw bu ma joxee poste yëpp nar koo jox dama koy delluwaat ci loxoy Tyson président assemblée bu woon Papa nga ko waroon waaw dëgg la xam nga ku ne it waaw mën na koo yor it xam nga dama jox ne ministère mën nañu bu avant ñuy fal dañ naan keelee la kii doo xamagul tant que liste bi taxawul doo xamagul. soo soo kaana loo ko jox. waaw moom moom xam nga soo bëggul beneen ministre pour défendre ma ministre bi nga xam mooy défendre néew gi doole mafia bi waaw koo xam moom dafa wàcc ba suuf jël ko. Ah. waaw soo moom amul benn problème dafa wàcc ba ci suuf jël ko. Papa Gueye Xeer. waaw Serigne Kine. waaw Papa Gueye Xeer moom it waaw loolu naa ko def ministre bi nga xamante ne moo yor courant bi yooyu yëpp a ngi ci biir yooyu day baax quoi yooyu day baax bu ko defee mu mën a taal climat mu fanaane vingt quatre heures sur vingt quatre du fay. waaw loolu léegi fi may jeexalee yow kañ nga takk ñaareel. waaw ñaareel moom. ah waaw non instant bi ñu ngi ñun daal Lamine ndax bu ñu takkee ñaareel loolu c'est normal ndax yeeg yo yokk xeetu yont yàlla Muhammad dafa baax loolu ñëpp kenn bañu ko. waaw waaw mi ngi noonu de loolu kenn ko mais nag na waaw na ba am foo xamante boo takkee say jabar du ñu sonn nga am foo leen dugal loolu boo xamante di takk di teg te amoo loo leen jox loolu ko am déet mi ngi noonu. signé nga benn jabar wala signé woo benn jabar. non ñun ñoom signé wuñu moom ñun tubaab soxlawuñu ñun ñoom ñu yàlla dimbale ñu topp waaw mi noonu pour lu li nga xam ne mat na daal ba nga xam ne mën nañ ko mën nañ koo def li nga xam ne matu daal ñu toogaat xaaral yàlla ndax yàlla moo ñu moom waaw ñun yàlla moo ñu moom dañuy sabab rek ci leeru Seydina Mohamed la ñu bind moo tax yonent bi leer moo tax nit dafa lëndëm doomu aadama moo lëndëm nit ku na def nga loo xamante Lamine bëggoo nit ñi yëg ko waaw da koy nëbb àddina moo melee noonu yonent bi rek moo tàllal ay loxoom waaw leer biti leer biir leer fépp ba bi leer kaw leer suuf mu ngi noonu koo koy Seydina Mohamed waaw moom ñëpp kontaan ci ay mbiram daal di ñaan yàlla taaf ñu ci barkeem di ñaan yàlla ci léegi fi ñu jeexale Moustapha Diakhaté sursis nga koy dóor wala deux ans ferme wala lan nga koy dóor parce que léegi ate bi jeex na layoo nañ pare léegi yow. dernier cadre bi juge loo ko jox dinañ ko jox suur suur ndax mi ngi koy tuub. waaw dama bëgg mu koy tuub tuub bi nag du benn yoon laa tuub da koy répété waat foo toll ah bi naaw kat heural yàlla ñu bind am de te ñun mën nañu juum yàlla rek moo dul juum. am de ñu doomu day jum bu ko defee lool suñu borom mën na koo jege ndax yàllaa ni jàmm ñaan leen ma may leen li ma may doyoo yu ma yot doyoo dara bu ñu ñëwee si àddina léeg-léeg da ngay def bàkkaar léeg-léeg du tuub looloo tax suñu borom indi ñu fi mais comme def na loo xamante na ko tuub di ko gën a tuubaat am de dem ci nga xam ne seen àlluwa kawe na am de dem waxtaan ñu ni ko léeg lii moo gën a rafet mais loolu daal am de bëggatuma koo dégg ndax boo gisee waxuma ci wax boo xam na mag la mais tey bu doon sama moroom la ñu def âge ak âge barke buntu këram laay dem di ko fa defanteeg moom mais comme mag la kilifa la am déet ah, loolu doo ko mën a wax wax yoo xamante day kii da ngay wax noonu boo déggaat te maytuñ ci kenn koo xamante nag da ngay tax jël baaraam di joxoñ yonent bi